toogaayam bi mu toog nii nekk en l'aise boo ko xoolee rek da ngay xam ne alal ji ñuy tudd sax ñoru ko te toogaay bi la bépp yaay wala bépp jur di ñaan donc yàlla bu mu leen ump yéen ñi di ma seetaan wax leen amin te bàyyi wax ji parce que démb gis naa yenn commentaire yoo xam ne nekkul sax ay commentaire yu nit war a mën a toog ci internet di ko jottali askan wi ndeg ñaaw bu mu ñaaw beneen bi ci topp mooy xale jigéen yu bëri xam naa Zeyna daf leen bett parce que jàppoon nañ ne Zeyna dafa war a sëy benn wesh maanaam mooy xale yi cappi-cappi daal nekk ci digg jàppason bi wala di def mbir di def biir bi déedéet Zeyna tànn ku responsable wala bu ku yaakaar ne ku responsable la ne ko coppet teg ci wetam li am solo mooy te yaa yëpp war cee roy euh, euh, mooy ku responsable nga jox ko sa doom ci deux 2024 la ñu nekk defe naa dépassé nañ fu ñuy xoolee ay diw moo ko mag tuuti wala daal euh, defe naa 2024 am na yoo xam ne daal pour man soxor wala dof noo la soo nu ma ko mën a tuddee mais nekk leen ay nit ñaanal leen ko te jéem a ñaan